mais am na ku ñuy woowee Aliou naroon naa ko fàtte parce que liste dafa gudd ndeysaan mënu mënuma wax lépp waaye xëy na dinañ organiser benn manifestation boo xam ne dinañ mun wax lépp Aliou di Christian moom malien la mandat de dépôt 4 deuxième mois 2015 c'est un malien personne c'est-à-dire yéen ñi condamné ko pour trafic de faux médi pour trafic de faux médicament kon du génn du génn nit yi fii Sénégal dañuy jaay grâce présidentielle pour nga génn kaso dañuy jaay liberté provisoire dañuy jaay contrôle judiciaire dañuy jaay sax néegu kaso yi waaw maa ko wax loolu ñëpp ko xam koo ko xamul na ko xam dañ lay jàpp li ñu ñu ko def mooy ah am na néeg daal mais ba nga néeg bu baax waaw da ngay joxe loolu moo fi war a jeex ndaxte bu dee dañuy jaay néegu kaso yi mooy kon doomu baadoole yi ñooy dugg chambre neuf chambre dix rëbës mooy chambre yi nga xam ne cent personne moo fa war a nekk quatre cent personne nekk fa ak tàngoor bi gis ngeen ñu nekk ñu kaso maa ngi ni ñàkk tooy xet imagine leen jamono ji lu xew biir kaso imagine leen jamono ji li xew biir kaso ñuy jaay néeg yi ñuy jaay liberté provisoire yi ñuy jaay contrôle judiciaire yi ñuy jaay grâce présidentielle yi loolu la ñu wax ne dafa war a jeex Vieux Diop Babacar Diop Aline Badara Koli Mohamed Seydina euh, Mohamed Seydina Ndiaye Mamadou Niang Jula Sow déposé nañ ba sonn liberté provisoire waaye du ñoom rek.